gars yi verseeru Barça yi gën xaw naa tàng na ku nekk ngi génne la wax et ay gën a gaan génn na ba aalu wax na ci le fait que kookee di Araujo considéré penalty boobu maanaam rouge bi mënoon na def meilleur maa ngi ciy ñëw salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant gën a gaan wax na ba xaw a sànni ay kàddu kookee di Araujo mu ngi noonee xaw ma nag Araujo nan la ko nar a gisee. catalan yi maa ngi ñëw pour soutenir leen nag ndeysaan situation yi ngeen nekk dafa metti moo tax dama sol mooy pour soutenir leen wan leen ne maa ngi seen côté di leen soutenir bu baax a baax a baax a baax mu ngi noonee bu loolu weesoo kooku di gënd gaan génn na nag ba aalo wax kenn ni nee na match bi ñu daf dañ ko téwoon seen loxo ñoo ko moomoon te dañoo waroon a qualifier leeroon na ci premier temps yi waaye dañoo dem ba benn moment situation bi changé lu waral changement situation mooy dañoo teel a jël rouge nee na foofee Araujo nee na li mu doon conseil Araujo mooy nee na bu doonoon moom foofu noonu su sañoon maanaam balaa ngaa def genre tacle yu mel noonu da lay wóor ne wóor ne yow bal bi di nga ko laal nag match bi fi mu tolloo la ba pare foofu tamit da lay wóor ne lii boo defoon taakal bu tacle bi jàllul rouge ngay am direct nee na foofu. su doon su sañoon Araujo warul woon taakale te warul wóor ne que ni dina laal bal bi nee na ba mu demee ba xam ne ne warul laal bal bi rek fa la warul woon taakale nee na xamul nag laal na bal bi ou pas mais foofu noonu moom moment yoo yooyu la moment yi kenn waru cee woon di taakale taakale yu mel noonu waaye nee na bu nee na nga bàyyeek bal bi un contre un bii bi nga may ko chance sax peut-être gardien mën na koo génnee wala soit même bu booy bi dugaloon bal bi sax ñoom mën nañoo ñëwaat revenir nekkaat ci match bi moo gën mu concéder couvrant boobu nga xam ne dernier défenseur ba pare am ci rouge nee na loolu moom vraiment àndu ci ba pare teg ci nee na euh, dañ leen a may qualification bi nee na Barça dafa may qualification bi kookii di Paris Saint-Germain jox ko ci ay loxom mu yomb loolee ci moom te qualification bi ñoom ñoo ko mérité woon wane woon nañ li taxoon ñu war koo mérité nag dès le début de match dugal nañ te it sëpp sa waay commencé football ak moom malgré Paris amoon na temps waaye ñoom it amoon nañ temps fort te match doon gën di dem même bu ñu leen dugaloon sax à 11 contre 11 mënoon nañ cee génn waaye à 10 contre 11 ci match bi teel noonu noon noonu c'était très difficile pour nga gagner match boobee loolu la gën a gaan génn di leeral ma xaar ci commentaire ba xam ànd ngeen ci ou pas man moom d'une part je kookee di Araujo taakul boobu moom mën naa ni faute boobu mën naan tàkkal bi faute boobu faute boobu mënoon na ñàkk même bu doon day bàyyi booy ba dugal sax nag wóorul quoi même bu dee sax am na ñu ne faute deful faute bi faute bi jarul rouge ak ñoom mais bàyyil booy bi rek yow ba pare booy bi dafa muus booy bi si trajectoire ci yoonu Araujo la jaar dafa foor ne force bu avancé des fautes xanaa mu taxaw bàyyi loxo mu ngi noonee. mu ngi noonu daal noonu laa ko gisee ngeen bindal ma seen avis ci commentaire yi ñu waxtaane ko jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous. <laughs> Eh! Eh, aujourd'hui aujourd'hui aussi <laughs> c'est Daïla. <laughs> Eh, le Daïla. Eh, le monde part en couille. Eh. Eh. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Daïla. Eh, le monde part en couille. Trouve ça dans le sac. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Daïla. Eh Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Le monde part en couille. Tous les sacs. Aujourd'hui aujourd'hui aussi, c'est un autre. Le monde part en couille. Good. Oh, hit that one. Woo! Oh, God. Good. Oh, hit that one. Woo! ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه نشيطك والله بتاعتي سليم اهم حاجه ابو اللي جابك عليك كملوا كملوا ألف سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا كابتن محمد عملنا كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه نشيطك والله بتاعتي عن اول اللي جابك على التليفون يا عم سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نشوف كورة ألمانيا كابتن محمد عمل له كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت رايح فين؟ شوية عايز عملية بتموتوا منين يا عم محمد؟ اعملوا اعملوا له عملية اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي اول اللي جابك على التليفون سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا عملنا فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية شده ولا ايه؟ طبعا راح اقعد راح شويه طيب اقعد راح شويه انت راح فين؟ كنت عايز عمليه بتموتوا منين يا عم محمد اعملوا له اعملوا له عمليه يا عم ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه نشيطك والله بتاعتي سليم ابو اللي جابك عليك تلعب والله كملوا كملوا سلامة يا كابتن كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا كابتن محمد عملنا كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه Don't even need your love, but you treat Vivier